asalaamaaleykum mbokki internetu Lac Rose TV comme ni leen koy defalee saa sune rek ci seen émission kaay seetlu seen émission kaay seetlu nag saa su di ci dalal ki nga xamante ni moom mooy Soxna Mbossé kenn dootu leen ko présenté fii ci Lac Rose TV parce que bari na ay émission yoo xamante ni euh, mi ngi ko fi amal euh, ñu mal nag loo xamante ni moom la ñëpp doon xaar euh, muy le 24 di combat bi dox ci diggante Siteu ak Modou té mom muy yaayu modulo Lo euh, yaayu modulo Lo lan nga ñu mëna wax ci combat bi nga xamanteni li ci dess bareetul. combat bi bareetul wante Modou mom dañ ko yoni té yakamti ko té Modou da koy jëli indil mako ko li ma wax ci Sonko yakam Modou dama ko yoni yakamti ko té da koy jëli Modou mbor kamir la ku koy yeb dang ko fekk muy nelaw té dañ ko yoni yakamti ko yaam da koy yoni yakamti ko borom jinné ye ya ko yoni yakamti ko Modou xarañ lo day jëli indil mako ci katane yalla ak ma xam li ma xon sama dom ji barkité mbé ci Sonko da koy jëli. Euh, euh, est-ce que gis nga Siteu bu baax a baax ndax démb la doon def open press am fële ca dëkkam. ñun génnuñu demuñu fenn ñu ngi fi yëkk demuñu fenn moo du tiitul nit xanaa yàlla yonent beeg sëñ Touba ak kilifa diine yi waa waat waa Tiwaawoon waa ñeneen ñu bàyyee ñëpp nag loxo jàpp loxo ñëpp suñu maam yi ñun tiituñu góor ñun góor noo mën a toll ñëwal. ci kattan yàlla nga xam dinañ jox walam bi walam ba mu mot ci kattan yàlla nga xam te dama ko yónnee yàkkamti ko yaayam moy wax ak mom borom ñett ko ñe wax ak mom ki nga xamne ne moy wax na ne roog di te duut mu duut yalla tawal mu taw moy sama mam koku moy sama mam moko don wax te nor la koy wax bu ko waxe domet dañuy wax ne amul ki moy yaay modlo modlo day indi da koy indi si kattan yàlla nga xam dañ ko yónnee te ko. Mhm. Euh, bari na aussi ñu doon wax ni site amna ay jamono yo xamanteni mi ngi won fi Lac Rose si fi ci fi nga xamanteni fi la Modou Lo dekk Amna ci droit duñu lañu dugg fam dekk amna droit dugg fiñ dekk lol dara ne wu ci yàqul dara. mais est-ce que yeen ñoom ngeen dugg site fa dekk dugg nañ fa duggaat nañ fa fim nek ni sa dugg nañ fa ba génnaat. dugg ngeen januar ba génnaat. ba génnaat ci kattan yalla nga te kenn teguñu jon waar si te gënu ma fa ëpp doole de man sin sin laa di te man samay maam am nañu ci nekk ñoomin ka ma am goro ñoomin ka mu dëkk jon waar googu mu dëkk mu nekk nag ay nabi ñi nekk ay navigateur di dem réew ma di ñëw si te gënu dëkk jon waar de mukk kon daal fi mu nii combat bi fan la toll yéen yéen a ngi ci préparation yi wala pare ngeen ba pare. pare nañ ba pare du mooy borom xaatimi Modou mooy borom turu yàlla bi Modou mooy borom ñaani yàlla bi nga xam ne bu ko defee macha allah kooku mooy toppatoo dispense astafurlah jàkka yeeg jumaa yi kooku mooy Modou ak taalibe kooku la du kenn Modou dama la yoon yónni tey yàkkamti la li ma waxoon sonk keroog te daf ma koy indil ci kàttan yàlla ak mbàkkam daf ma koy indil. Euh, mën nañu xaar bu bés baa ngeen indi takkaay yi indi biteel yi. indi njaq yi. bakaay dafa dugg njaq dafa dugg déggoo ma ne la njaq jinne mun na ko yàq da ngay laaj ñi yor jinne ni man njaq mun nga ko indi ba yor victoire bi ma jël saw waxal de yaay muut lu ngay waxal du kenn man la barke sëñ Fallou sama maam duñ indi njaq lañuy indi moo raw njaq la indi moo raw njaq mais jouru combat bi. lan nga koy lan ngay def ci suur combat bi noo koy waajale yow sa jëm bopp yow en tant que yaayu Modou Lo eh, yaayu Modou Lo dina toog génnee ay sarax dina génne ay sarax dina génne ay sarax dinaa ñaanal sama taaw bu góor dénk ko na kumba jigéen ak jëkk ak jëkkëram jënd bi ma nangu ci moom dénk ko ko dénk ko yàlla ak bi dénk ko sëriñu diine yeeg sëriñu aada yi ndax am nay fans Modou dafa am ay fans de am nay fans sëriñ wante nag ñiy tëgg làmb yi nañ xoolaat seen i bopp nañu xoolaat seen i bopp bu baax a baax a baax nañ bàyyi mbër yi ñuy xeex rafetul nañ bàyyi loolu ak journaliste yi am na ñoo xam ne sax dañuy xeex Modou nañ bàyyi loolu loolu amul sens ndax dañ koy def Sonko di ko def keneen ak keneen am na journaliste yoo xam ne Sonko daf la war a xoolaat seen i mbir barke sëñ Fall te dina ko xoolaat ñun duñ journaliste journaliste dëkk du doxee noonu déedéet. combat bi mën nañ ci xaar dóor mu daanu mën nañ ci xaar ardo comme mën nañ ci xaar jël bu leer. ay pa euh, euh, kii dina am xaw ma nuñ ko waxee sukkut nii bañ defee ne da ngay daanu mu jëntal ba yow nga daan kooka victoire ba ñu yëkkati sa loxo noonu la bëre bi di demee. kooka wet lay toog daanoo. ak maanaam quatre appui. quatre appui day am ba pare quatre appui amee amee pare dañuy defee ne kooka daan na fekk daan na ñu soufflé ñu bëri kooka day daanoo wetaat. dóor mu daanu du ci am gisaguma ko bokk mën na dem nag amaat wante gisaguma ko du wax lu ma gisul ndax xaw ma kañ la du ma fenn xaw ma kañ la du ma wax loo xam ne du am déedéet noonu laa gisagum. Euh, am ñu bari ñoo xamante ni démb bi ñu seetaanee Siteu <coughs> ci open press bi euh, ñu bari nee nañu Siteu mi téye na ndam li ci loxo. waaw ñooñu seen wax la ñuy wax waxuñu woon ne Tapha téye na ndam li ci Balla gi Balla Gaye nu mu ko def Modou Lo bëriwul ak euh, waa jooju nga xam ne dafa njool ta dëkk Dakar nu mu tudd sax su mbër moom. Gris Bordeaux ak ñeneen ak ñeneen ñu ne gaynde Modou Lo moo mooy gañe Modou anamu yàlla na pare na pare na si kun fa yu kun pare na Modou dañ ko yónni te yàkkamti ko te dana ko indi si kàttan yàlla nga xam man dama xam ki ma am mook ama seen a yem dañuy dem ba jeex am noonu la mel man ki ma yor dama ko xam. du foyee bëri day jox buri bës da koy jox po yàlla xaw ma duñ ko waxee da koy jox cër Modou ku ko yab da ko fekk muy nelaw bark sëñ Fallou sama te Modou dama la yónni yàkkamti la barke sëñ Fallou li ma waxoon ci Sonko loolu laa lay wax dama la yónni yàkkamti la nanga xam na ngay taxawee nanga xam na ngay duggee ca géew ba nanga xam na ngay bëri Modou xamal na ngay bëri na nga xam na ngay bëri ndax ñëpp ñu lay xeex wante nag. gàcce dina bëri ci kattanu yàlla ak mbaxam sonk xeexuñ ko ñaata nit a ko sàpp samp ñaata nit a waxoon ne sonko day am defet wante yàlla samp gëmal kii bu mu sàmp bala nga koy daan sonn xarañ loo gëmal sa bopp gën la gëm sa bopp la yax sa ndax am nga dignité am nga dignité bu baax a baax a baax a baax a baax a baax am nga yar bàyyee naa la yàlla yunant bi bàyyee la sëñ Fallou mii sa maam bàyyi la maam Ibrahima Fall ak Samba Diallo ak euh, Mame Baye ñas mi nga xam ne bu ko neexoon day ñuul kukk sët itam ñaare dañuy sensé ndax ñun ñuy toog ñaareel dañuy sensé bañ ne est-ce que kii nit kese la est-ce que kii amul lu muy jëfandikoo dama koy dégg bés bu ne wante jëfandikoo dara ni ñu toll ni si bi def ak ñu xam na loolu lépp yàlla la ñaareel nag nit ki day yéeg ndax nit yàlla ku ne war ngay yéeg day am bés dañuy yéeg wante Modou dénk naa la say maam yooyu dënk la kumba jigéen nag. dénk la kumba jigéen ak jëkkëram demal indi ma victoire bi te ñib seeg jàmm te mu neex ci kattanu yàlla ak mbaxam yaa ko mun yaa ko ëpp fit yaa ko ëpp doole barke sëñ Fallou Sama. waaw léegi xanaa combat bi jàllee nag wax dëgg yàlla Modou Lo dina la recevoir nag. Modou bu ma bëggoon mu recevoir maa ko bëggagul. maa ko bëggoon bëggaguma ko. jinne gu yónnee ko yóbbaguñ ma ko ma ngi dem kër modou ma ngi duggu kër modou maa ngi koy duggu guddi gu ne heure bu ma ma duggu fa ne jalañ def lamay def dem sama yo wa mais li ngay daj ci Modou Lo génne ay sarax def ay ñaan lu ne nga diko ko daj ci Modou Lo mais baxna aussi Modou Lo xamanté ak yow. dina xamanté ak man loolu dinañ xamanté bu bu ñuy xamanté du ma ko nubu sama rak nga Modou dinañ xamanté bu neexee yalla mané ko man sa yaay séeréer bu ñaaw bi mo la buggal sama bop do la yalla dina ci katane yalla ak mbaxam wala yi paase ak jamm ndax damay dem voyage ci katane yalla ak mbaxam. Euh, mais jour combat bi jour combat bi euh, da ngay dem stade wala fi ngay tok di def li ngay def. dew ma stade damay tok fi may tok di def limay def damay tok di def tane yalla ak mbaxam te ndam li mom duñu ko ñàkk ci katane yalla ak mbaxam lu nit mun nak defal lu nit mun waxal. ñun yàlla lañ yaakaar ak maam ji kii mosuma ko woo am defet sama maam ji mosuma ko woo am defet barke sëñ Fall kii laa yaakaar yaakaaruma kenn ku dul yàlla yonent bi ak liggéey ndey ak barke baay ak maam ji kii mooy sama maam mooy sama xol juróom-ñaari sëñ lu ma ci wax day barke barke sëñ Fall sama bu ma deful dara sa ne moo du dénk naa la kii kii mooy taxaw keroog bu rëy keneen du taxaw ku taxaw duñ la gis. ñaaral da ngay bëreeg nit doo ko gis dafa am ba mu nekk beneen malo nañ bàyyi lépp daal jarta wax surprise. <laughs> ginnaaw loolu combat bi bu fekkee ni jeex na euh, ku am ndam mën nañu fee ñëwaat. ci kattan ni yàlla nga xam da ngay ne bu ngeen amee ndam. man moom du ma wax bu ngeen amee ndam damay bañ far. waaw waaw man damay bañ far parce que far waruma. mais yow mi nga xam ne yaay yaayu Modou Lo. man nag bu ndam laay te man ndam la man dama ko téye sama loxo li ma waxoon ci Sonko ndam li dañ ko téye suñu loxo Modou doful Modou doful dofaanul Modou doful dina ma indil ndam li si kattan yàlla nga xam ne ma ku ma jigéen ma ne am ah mu ne ma ndam laa ngi nii ci kattan yàlla nga xam di nuyu nag sëriñam boobu nekk fii ci Balla Gaye dëkk Géejawaay di nuyu ñëpp di nuyu ñoom saa Touba ak ñëpp. di nuyu nag suñu maam jooju nga xam ne macha allah di nuyu ñeneen ñu ma xamul ñu ñaanal Moodu waaw di leen di nuyu. Eh, ginnaaw du ngeen gisante te combat ba itam doo fa dem boo ko doon dénk ay kàddu yan kàddu nga koy dénk. yan kàddu laa koy dénk na ñi mu àndal nañu am discipline nañu am yar nañu am teggi bu ñu indi violence bu ñu indi lu bon bu ñu fa wax lu bon bu ñu indi xeex bu ñu indi coow. nañu def la ñuy def ñëpp si si kattanu yàlla ak mbaxam loolu laa koy dénk moom tam nag xam fa muy teg tànkam nag ko xam bu baax a baax a baax a baax a baax a baax am na ñu koy xeex de dafa am ñu koy xeex du ma ko nëbbu am na ñoo xam ne ñu bu ñu sañoon tey moo du victoire bi du ko jot ñun dañ mu sañoon tey moo du victoire bi da koy perte lu ne ñu ngi koy def am na sëriñ yoo xam ne dañ fay dem ba pare bu ñu génnee balaa ñuy génn ñu nettali ko sëriñ yi pour yàqal Moodu te ñu jege Moodu nga cax barke sëñ Fallou wante lépp kenn du ko wax yoo xam ne dañuy dem yàqali Moodu bu ñu génnee dañ koy nettaliwaat sëriñ ba da koy woo wax leen ndax sëriñ yi ñëpp ñenn ñi gan walla ñoo bokk maam nañu réglé ci loolu ñenn ñi ñoo bokk maam ñenn ñi ay xarit la ñuy doon waaw nañ tey li ñuy def Moodu yëpp ñu gis nañ ko. Sonko mos nañ ko indil sëriñ boo xam ne réew ma la fee la jóge xam briconnage sax fii sama càmmiñ jooju nekk waa fiti séeri kooku bi muy ñibbi dafa daw wetu ndeyjoor bi dafa la fañ dafa daw liggéey ba yeggul nañ moytu nit ñi nañ teey nañu teey man am naa ci càmmiñ du ma la nëbbu du ci la ne fiti séer la sama xarit la dafa sori ci man liggéey bu ñuul dama koy liggéey du ma la nëbbu bu ñuul kukk bu xàtt dama koy liggéey barke sëñ Fallou sama maam du ma la nëbb moo du daal na tey xam fa muy teg tànkam bërëb bi bu mu ko parax paraxee déedéet bërëb bi jox ko àq bu ko parax paraxee bul nangu am ci dof dof lu xamal bu baax a baax dofoo sax dama lay yokk xel ndax xam naa ki ma jur ndax man du ma jur cuune déedéet man ku ñuy ku ne ku ñuy wax ne kii nangam nangam kooka laay dem nangu jur ko na def sonko loolu samay rawaan bugg. lan ngay tëjee. ah jàmm ak salaam di ñaanal sama doom ji ndam ci kattanu yàlla nga xam dimanche ak jàmm ñu soufflé waa ñàgg wër victoire bi ñëpp si war la ko ros ci kattanu yàlla nga xam surprise bu neex ci kattanu yàlla nga xam mooy amaat ci kattanu yàlla nga xam borom jinne yi la di la nuyu di nuyu waa Sénégal di nuyu ñëpp di nuyu Siteu bu baax di ñaanal jàmm moom tam. di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal tam ñi ko topp am jàmm ñu ànd ak Modou am jàmm doom yëpp benn la. Mmh. jërëjëf mbokki internet yi yéen a ko déggandoo kooku moom moo nekkoon euh, Soxna Mbossé euh, di la voyante dëkk fii ci Lac Rose euh, ñàgg képp koo xamante ne rek bëgg ngaa jokkook moom numéro téléphone yi mi ngi noonu ci suuf boo ko ci woowee di nga jokkoo ak moom seet bu leer te wóor boo ñëwee fii fekk ko fi kon ñu di leen jox dig daje ba beneen.